ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf école bi tëjooni buntam tey la koy tijji journal bés bi le jour nañu ubbite école gi tëj na boppi parents d'élèves yu bari li mu bind mooy rentrée scolaire bi saf na sàpp ci parents d'élèves yi ne ci diggante inscription bi fourniture yëre yi ba ci transport bi léppi dépense neen la ne boo jëlee benn élève la ca parent di daj di ko ca dépense ngir mu mën a dem école dina mat lu joo xam ne borom ndax fête religieux yi fi jaar ci xët mu njëkk bés bi le jour ndénkaane benn baykat bu fay xam le ne li mu jële ci ay toolam loolee lay tay ngir ay dooma mën a am ay fournitures yi ñu jànge journal Tribune mel ne ku naan ñu askan wi ak coono bi ñuy dund moo xam ci dépense école yu bari yi la moo xam ci wàllu dund gu seer gi la wala ci inondation yi loolee lépp ku ci yaakaar état bu Sénégal ngir mu saafaral la ko xalset nga làmboo sagaru saako ndax Amadou Ba bi la ñu gën a tal jamono ji Macky Sall mi ngi gàddu loxob Amadou Ba mi jooju tribune nee nañu réew mi mi ngi bëgg a yóbbu àlaxira góorgóorlu yi ñu sàggane askan wi soofantal seeni soxla bandone leen ca diwaanu Siggi Coow rek tribune mi ngi ñu fay wax juróom fukki école ak ñaar yoo xam ne kenn mënu faa jànge école non fonctionnelle ndax melokaan wu bon tàllalu leen samay loxo ngir ngeen jàppale ma waaye yéenay samay loxo yi ma war a ay kàddu yu ñu mën a ci kàddu yi Amadou yi mu yëkkati keroog samedi secrétariat exécutif national bu APR keroog samedi ca palais ba tegal na fa gaayam yoon wi war a jaar suñu bëggee seen candidat bi di Amadou Ba gagné élection yi ci premier tour ndaje moomee mu woote woon moom président Macky di secrétariat exécutif national bu APR source mi ngi ñuy xamal yenn yu fa xew bokk na ci li Macky ne waa këram yi ba tey musuma tànn nit def ko sama directeur de campagne ci élection ñaan ko ci bokk ñu dox ci seen candidat ci élection présidentielle yi ñu bari ci ñoom ñu luukum luukumi demoon ca direction générale des élections wuti ji fay de parrainage candidat yu bari yi ñu dégg ci seen biir anki dina kay yéenekaay mi ngi laaj ndax du ay pexe yu ñu teg ngir bañ ñu teel a xam kan mooy seen plan B Walf Quotidien nañu li mu xam ba xam ko daal mooy ñoom waa Pastef yoon wi ñu jël ak seen candidat yu bari bu ñu ko wàccul li dal waa Benno Bokk Yaakaar ci candidature yu bari moo leen di dal waaye Yewwi Askan Wi ak ni ñu bëgg a ci présidentielle yi ku nekk ci ñoom bëgg a fel sa yoonu bopp bëgg samp sam dënd ne candidat nga le mandat ne nañu ñoo ngi defaral Amadou Ba ko ñoo ngi yoon wi loolee jebbi ci Yewwi gis na ne mooy bëgg a tóor tóor biir taxawu Sénégal di waa kër Khalifa Sall coup de Khalifa Ababacar Sall ak Barthélemy Dias ba di ñu wax ne conflit d'agenda ko war giléem ba wàcc ko wolof yi ne nañu loo warati dafay gàtt li gudd te jeexagul mooy li bokk ci élection présidentielle 2024 ne solo national mi ngi ñuy xamal ne ak ñaar fukk ak juróom-benn benn ci yooyu les candidats di Serigne Boub moom la journal li quotidien xëyee ci xëtamu njëkk Serigne Boub maire bu Kaolack Serigne Boub candidat ci élection présidentielle 2024 yi nee na yéeneem mooy doon président de la république bu Sénégal jiite réew mi ndax mën na ko ne jaar jaaram may na ko ko ko mu ne it moom sëriñ boobu li Amadou Ba bëgg moom la bëgg yamu rekk ci jiite mairie bi waaye dafay jàngale mi ngi xamle it moom sëriñ boobu ne ay élection mënee su ko gañee ci tappale tappale yi ñuy wax ne moo am ci ministre des sports ci xaalis bu fond force su covid 19 bi enquête ba ca waa dig di division investigation criminelle doon def la ñu ca gis moom la libération xëy di yeggale ci xëtam mu njëkk ci xët mu njëkk l'observateur xibaara nga fa beneen bi ci benn terrain nu bu nekk ca Joal fa la ñu gis benn weenu jigéen bu ñu dagg dugal ko ci siwo bàyyi ko fa